asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bépp mbokkum taalu bi bu ci jot rek partagé ko yàlla na nga daje ak ngërëmul yàlla ak yonente bi ak Serigne tubaa ca nam gën a mate bunt bu rafet bu wóor bu gaaw ci liggéeyal Serigne Touba tubaa ca kanam